fidèle internet nuyu nañ leen bu baax a baax di kontaanati également ci temps bi ngeen taamu laa seen leader Dakar Plus comme ni mu leen koy defalee chaque jour gis ngeen kay ki mu leen andil muy ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mbacke Nourou la li nga xamante ni moom moo di Serigne Daara fee ca Touba xam-xamam màcc loolu jëm ci wàll yi nga xamante ni moom moo di politique tey na ñu nar a seq moom waxtaanu am solo foog naa ko ko déglu rek ah, di nga ciy jariñu ma bàyyi ko rek mu nuyoo mbokk internet Dakar Plus laataa ñu xoos waxtaan Serigne Mbacke nuyu naa bàyyi la nga nuyoo mbokk internet yi soxna Faa Rasoul maa ngi lay delloo am nuyoo. di nuyu sénégalais yi. Mhm. Eh, di leen sant. Mhm. ci teewlu gi ñuy teewlu Dakar Plus. Mhm. ak yow sa liggéey bu rafet. di fàttali sénégalais yi nag nañ xam ne. yenn journaliste yi nga xam ne ñu ngi ci terrain bi ne ci tele bi ubale ko kàpp nañu waaj. <laughs> xam naa bientôt ci seen kaw nga jëm moom. Ah, incha allah <laughs> parce soxna Faara Sow mi ma gis moom. Mm-hmm. xam naa ne moom daas na paakaam ba mu ñëw te ku mu fekk ci plateau ah, <laughs> kon maa ngi rafetlu sa ñëw fii. ak waa Dakar plus gi yëpp. Mm-hmm. di nuyu sénégalais yi di leen masaw ak fépp fu mën a nekk ci àdduna. Mm-hmm. di wax ne dinañ indi ay leeral yu bari ci situation réew mi fii mu toll. voilà kon tàbbi ci mu nekk lu am solo macha allah euh, mais tamit dañuy dem ci li nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko parce que ëmpale woo ko ni doon nañ ko mandat de dépôt mm-hmm. ni ki démb mu nekk fi nga xamante ni moom moo di sa prison bee di Sébikotane mm-hmm. naka nga analyser li nga xamante ni xew na sa waa analise bi ma ci am jàpp naa ne boo taataatoon sa micro sénégalais yi mm-hmm. ñëpp benn xalaat bi la muy jaay doole jaay doole boo xam ne dafa ëpp dafa dem ba jéggi dayoo bàyyi ko ci kenn ki nga xam ne ba mu ci nekkee ba léegi mosu cee deltu ginnaaw muy ak nguuram ay màndaam moo li ci gën a fés mooy jaay doole muy Macky Sall man jamono bu nekk damay wax man benn interlocuteur laa am muy Macky Sall awma ma problème ak benn ministre parce que ministre yi amuñ benn njariñ mhm. procureur yi amuñ benn njariñ seen liggéey amul benn sens ñoom lenn mooy seen métier mooy yàppar yàppar yi lépp lu ñu leen jox ndigal ñu appliquer loola. moo tax man awma soxla awma yitte ci ñoom. même tey man bu ñu ma convoqué woon. di ma laaj dama naan xaaj di leen xool. parce que seen i laaj ak tontu amut benn njëriñ liñ bëgg a def kenn mënu leen ko tey def. te loolu dogal bi ci kaw lay bàyyi ko. muy ngóog mi nga xam ne moom lañ jox sunu réew mii moom lañ wooteel jox ko sunuy carte am yaakaar ci sunu réew mii ngir mu doxal ko. te loolu yaakaar jooju moo taxoon nit ñi fal ko. jàpp ay nit di tëj ak di tijji taxul ñu jox ko suñu réew mi ñamuy tëj ak di tijji loolu suñu yoon newut ci tàmbaliwu ko ci Ousmane Sonko kenn ku ci nekk xam na ne Karim am na fi projet xalifa Sall am na fi projet Barthélemy Dias am na fi projet ak ñu bari ainsi de suite ainsi de suite Ousmane Sonko lañ mujj a utal projet te projet yi ñuy wax ci Karim bu fekkoon dëgg la ci ñoom. bu Karim Wade pare pour verser xaalis même bu fekkee dinañ ko teg ay daan du metti kon daane fi mu ne war naa jeex. Khalifa sàll ay ñooñam pare woon nañ pour constitutionnel ko un milliard. xaw ma pour mu fay ko li nga xam ne moom lañ ko doon tuumaal. bu fekkoon xaalis ba moo leen yitteel kon dossier boobu féete na ak côté. mais ay tappale ak ay galgal seeni adversaires yi politique ngir gën a mën a yàgg ci réew mi waxoon naa ko fi Macky Sall. Mhm. Euh, di gundaandaat di yéeg fu ko neex dem fu ko neex ñëw moo ko ay nitam mm-hmm. loolu moo ko ñor mais liggéey réew mi mm-hmm. ak génne réew mi ci situation ak ci ay jafe-jafe loolu di juteem mm-hmm. Ousmane Sonko dafa ñëw indi benn discours boo xam ne ñun sunu génération bi ci moom la ñu ko déggee daanan dégg ci mama Mamadou Dia waaye ñun Mamadou ja jamono yam yi nekk di politique di di def ay révélation booba ñun taluñu ko booba ñun ay xale lañ wala am na ñoo xam ne sax juddooguñ cetera Cheikh Anta Diop la même chose. Mhm. Ousmane ko tollook ñun génération. ba pare jëlale naa discours bi mu indi waaye lu jiitu discours bi moom yàlla suñ borom daf koo def nit ki nga xam ne démbam dafa rafet démbam dafa set wicc. Mhm. ba tax na tey mu am rigueur sañ a toog wax. ne ñi ma ko séqal amuñ benn baaraam tuuma buñ mën a joxoñ mhm. ci menn mbir moo xam ne laale naa ci loo xam ne lu jaarul yoon la ci wàllu ger corruption et cetera yi nga xam ne dañ koo miin ci suñu homme yi wër nañ nag def nañ galgal fu nekk amuñ benn preuve mm-hmm. te waxoon na ne benn kër laa am ku gis beneen kër jëlal ma may la mm-hmm. yaakaar naa bu fekkoon am na beneen kër yaakaar naa gaa yi dinañ ci rey seen bopp parce que Dakar fii suuf moom xaw ma lu fi lu fi lu fi lu fi jaradi waaye du suuf mm-hmm. kon jàpp naa ne homme politique bu toll noonu wax loolu ànd koog discours bu toll nii mu toll ba pare am ci détermination ba pare Sénégal yi duñ bàyyi men benn menn mbir xel fu mu ko waxee day waat wallaahi duma leen wor te ñun ñi jàng dañoo xam lan mooy waat nga yëkkati sa loxo def nii tudd yàlla daf ko def miraaran yamuñ ci def ay gëstu ba amuñ benn preuve léegi ci projet yiñ tàbbi mooy affaire u diabolisation Ousmane Sonko sarafis la Ousmane Sonko ibaadu la Ousmane Sonko xaadir la usmaan mm-hmm. lan mooy sunu yoon ci usmaan Sonko lu mu doon Senghor bokkutoon ci benn diine fii bu dul diine christianisme mm-hmm. te fii ki diine christianisme euh, minorité la fii ci Sénégal mais loolu du fi problème man kii jàkkaarloog man chrétien la Basile la tudd sama xarit la bu xewlee damay dem bu ma xewlee day day ñëw ci man mmh. ñun amuñ problème lool am mmh. amuñ problème boobu mmh. Sénégal mosoo fi dégg chrétien ak musulman dañoo am benn jafe-jafe non seulement ni ñu jàppee chrétiens yi sax jàppewuñ ko suñ bokki jullit yi Fatick fii boo demee ci àll Fatick bii dangay gis benn kër kii di jullit kii di chrétien jullit bi mooy nijaayu chrétien bi. Mm-hmm. boo demee Njongoloor jàkka jaa ngi ne église baa ngi nii ñoo jàkkaarloo. Mm-hmm. ñëpp ci yàlla la ñu jëm. Senghor mi jiite woon réew mi chrétien la. mais lan mooy suñu yoon Ousmane Sonko ci religion bu mu bokk ak lii la ak lee la. Mm-hmm. ñun Ousmane Sonko loolu taxul ñu ànd ak moom taxul ñu koy topp taxul ñu koy déglu. discours bi mu kile li mu wax loolu moo nu convaincre. ndax kenn sikki sàkkawul ne Sénégal bu nu amoon njiit bu baax. génn na ci guuta gii mu nekk bu yàgg. ndax réew moo xam ne dafa boole mbooleem ressources yi réew di am tàmbalee ko ci pétrole gaz pétrole bi nga xam ne rakki Macky Sall jéem bokkal ndey ak baay daanaka bu li ñu waroon a lekk ci ay juróom fukki at moom lekk na ko ci benn at <laughs> waaye wallahi alazim ku ci dee doo noppalu ci sa bàmmeel ngir àq yi ñuy lekk dafa bari ba ëpp boo leen xoolam boo amoon yi am na yenn appareil yoo xam ne boo ko këppoon seen kanam yi bokkut ak appareil yi hmm. da ngay gis ne seen kanam yi dafa ba xëm li ma lay wax nag baatin la hmm. yàlla lakk na seen kanam yi ba mu xëm hmm. wallahi lazim ku ci dugg sa bàmmeel doo noppal dund gi yàggul de saxul de Antoine Félix Ndiome léegi nga dee Macky Sall léegi nga dee procureur bi doon àtte Ousmane Sonko léegi mu dee ñëpp dañuy dee te ku ci tëdd ci sa bàmmeel sa loxo bii ngay ngay ngay njegenaayoo ñi ngi wax rek wax ji mel ni amul effet ci seen jëmm yi waaye nañu dox dem te coow li ak doole ji ak ah, Macky li muy def ak yomb jël moyen état yi nga am yëpp dóor ko ci benn nit yow mii boo nekkoon fi mu nekk mën nga koo jëfandikoo ci man mën nga ko jëfandikoo ci Ibrahima sa xarit bi loolu dafa yomb loolu du ngóora du daara loolu yëfi yambar la góor dëgg da ngay wàcc ci terrain bu dee mbër nga nañ ñëw ci géew bi ñu sëgg bëre bu dee commerçant nga ñi ngi ci marché bi wóolul sa bopp ñu teg njaay mi ci taabal ci bëri ku ban sa moroom duma mm-hmm. waaye aji saar mambay ñaa yambar yooyu nga jël ko di leen dóor ci kaw Ousmane Sonko te jotewu noog ñoom dara projet aji saar bi ñëpp ñoom dañoo dem ba xam ne mm-hmm. la ko tàmbalee ca ndey mbi ga ka ci jiitu ba ci ki mujj ci ay fen ak i tappale lañ nekk mm-hmm. te bis dina ñëw aji saar ñoom ñëpp lay toroxal mm. maa la ko wax fii dina toog bis kenn mm-hmm. du ko sexal suukar kenn du ko sexal lem mm-hmm. dina wax film bi di début à kon tekk jii lépp dina yaakaar nañ la xaw ma ban bis lay doon mm-hmm. waaye lii bu la neexee nga nate ko ala kulli xaal dina am ñàkk fayda ak waaye di mënul weesu nga amoon lenn looy tuumaal Ousmane Sonko ci bu mujj bi naan dafa sàcc téléphone vol de portable loolu loolu loolu loolu ñi koy wax ñoom damaa jàpp ne ñoom du xooluñ seen bopp ne am na seen i njaboot seeni doom yu leen di seetaan te video yooyu ñuy taxaw di ko wax daf fiy des mm-hmm. ñoom dañuy dem ba am juróom-ñaar fukki at doon ay mag nit ñi di leen reetaan ngir mm-hmm. seen jëf yu suufe ak seen jëf yu ñaaw yu ñu dëkkee sax ko di ko def mm-hmm. teg sénégalais yi nag stress bu mag démb ba léegi sénégalais yi koo xool benn xar kanam la am muy xar kanam bu ñekk dañoo jàppoon ne sénégalais yi dañuy génn xeex sénégalais yi génnuñu xeex ñoom ñëpp ñu ngi seen kër yi toog waaye solution dina am de. Mm. ndax bu ñu fàtte ne sunu borom mi ñu moom. Mm. dafa wax ne boo bëggee génn ci mbir da ngay sabablu. Mm. sénégalais yi nag sabablu nañ. génn nañ ba tàyyi ay bakkan rocc. tey ñu yegg si fii aspect mystique am na mystique am na ci nag ci côté Macky Sall. waaye loolu duma ci dugg. ndax dafa am liggéey boo xam ne ñun ñu ngi ko ci liggéey te bëggumaa wax. waaye nag li wér mooy. xalaa kulli xaal. ñii di ko galgal def seeni mbir ba jàpp ne pare nañ mhm. seetaan leen ci kanam incha allah rabbi seetaan leen ci kanam yuuxu dina jib fuñ ko foogewul macha allah bu nekkul am solo yuuxu fuñ ko foogewul mhm. euh, alors mu nekk li nga xamante ni lu doy waala la mhm. mais démocratiquement est ce que jàpp biñ ko téye biñ ko téye c'est juste wala nan nan nga ko gis teguwul ci yoon teguwul ci yoon man xale yi nga xam ne dañuy def droit dama leen ñi ma ci xam dama leen bàyyi leen ko te dem wuti leneen lu ngeen def parce que droit bi amul njariñ dëgg parce que nit ki duñ respecté ay droit am duñ ko jaar fi ñu ko war a jaar. Mhm. maanaam dañuy singili benn nit rek dal ci kawam indil ko ay dossier duñ sàmm ay àqam ak yelefam avocat yi koy taxawu du am benn suivi. Mhm. ñoom lañ bëgg def rek toujours ci loolu la ñuy exercer di jàll ba am li ñu bëgg. waaye nag amaguñu li ñu bëgg ci Ousmane Sonko. Mhm. amaguñu li ñu bëgg de. am na ci côté boo xam ne bëgguma ci wax bëgguma ci sori. te incha allah rabbi solution dina am ci kanam léegi. ñoom daal ñoo yor état bi. ñoor nguur gi te Macky dafa war a rocc loxoom ba mu set ci justice. soxla nan état boo xam ne bu ñëwee fii. day jël justice mu tegal nu ko ne jël assemblée nationale tegal nu ko ne moom mi nga xam ne mooy président mu doxal rôlu président am. ci liggéey réew mi ci yaatal dëkk bi ci ay tali. ci wutal ndaw ñi ay xëy. ci ec ci ci commerce bi estable ci wàllu tourisme nit ñi ñëw di dugal xaalis mu am fu mu ñu féete. ñu dëkkul ci réew mi ñu di leen identifier ainsi de suite ainsi ndax président dafa am rôle boo xam ne moo gën a mag dugal loxoom ci Suisse wala muy contrôle assemblée dafa am lu ko doy sëkk. ñi nga xam ne ñooy entreprise yi nga xam ne dañ fay ñëw. di jël suñu recette di lekk li nga xam ne moo ci ëpp. di bàyyi li fi gën a néew. Mm. loolu am na ñu wax ne sax dañu war a mm. def cinquante cinquante te loolu mooy indi développement ci réew. bul fàtte ne am na yeneen réew yu am ay ressources seen ressources yooya jariñ na leen ba indi leen développement ci seen dëkk. mais ñun am nañ ay ressources mais ay étrangers ñoo ñëw di ko exploiter te numéro un ci exploitation bi mooy France bi nga xam ne moom bam ñu dalee lekk ak léegi ay ati at la te mënuñoo bàyyi dem yoonam France daal mooy pays bi nga xam ne dafa mel ni moom bu amee benn bis bu mu xëy siwul Afrique day torox mhm. mooy deuxième xaw ma troisième pays bi nga xam ne moo ëpp li mu stocké mhm. wàllu or ci monde bi te France amul or mhm. fan la jëlee or bi fu dul suñu réew yi sama Sabodala boo demee ñaata la ñuy exploité ci ay tonnes par an te ñun duñ ci jariñu ndaw ña fay xëy sax non seulement boo leen fa fekkee danga leen di jox sarax hmm. ci réew mu toll ni Sénégal état bi encadré wul loolu hmm. boo demee fii ba am na fast food boo xam ne bu ama am doole la li muy génne ci wàllu ressource ay milliards par bis waxuma la par an hmm. te lu néew la ci Sénégal di jariñu non seulement tund wala ko wër sax xale jàng nañ ba am bac ndax foofu jàng rek la ñu xam man xam naa ci ay sama xarit Fallou Mbacke Diop laay faama et cetera ñu ngi foofu ca tund wa usine ba man leen a jël embauché leen mhm. ay journalier lañ fay def ñàkk fay da ñu leen di fay ay weer yu ñàkk solo mhm. te ci seen réew la usine bi nekk nga dem jogo ca kanamam am na li ñuy wax zircon di matière boo xam ne bu riche la mhm. non seulement condition yañ leen war a teg ca environnement ba ca àll ba ngir polition bi nga xam ne wàllu carbone bi yooyu da koy dégager day yàq seen tool ya te amul benn suivi boo xam ne état bi jël na ko pour dàmp leen ci wala lu ñu leen di jox non seulement sax dañuy nangu seen dëkk ya pour usine ba bu avancé ba egg si fa. Mhm. te duñu am fenn fu ñu ko jooytoo. jafe-jafe yi ak naqar naqar yi mi ngi ci village yi gën a sori fii ci Sénégal. Mhm, mhm. te président bi yëgu ko ndax du génn Dakar. boo ko gisee ci àll bi période campagne la day fen boo ko gisee ci àll bi période la. bu demee la muy wax boo ko dégloo bu ko waxee ba noppi bu toogaatee fàtte na la. boo waxee dañ koy sant ci wàllu électricité ak loolu c'est force. kuñ fal jox la ay milliards. force fa la force da war a liggéey. falu ah, ñu la ngir nga tëdd di nelaw. Mhm. falu ñu la ngir nga yéeg ay avion di cëppi cëppi di wàcc. Mhm. ñoom damaa jàpp ne duñ ay gor ndax as gor bu tukkee ci réewum jàmbur. Mhm. gis moroomam góor ni moom. jiite am réew. réew moom jiite mu teg leen ci bonne condition liggéey réew moom ba mu rafet. nga ñëw mu recevoir la nga gis na na muy doxalee am réewam xanaa boo ñëwee boo dee as gor nga war a jéem a génne sa bopp ci ay caaxaan ak i tappale jéem a liggéeyal sa doomi réew te xam ne defoo lu ëpp valeur loolu te lépp lu fi Macky Sall def day jeex. bu ko neexoon man na fay desaat vingt ans. Mhm. waaye xalaa kuli xaal day jeex. xalaa te lu mu fi gën a yàgg tàggoo ba di gën a metti mhm, mhm. yow mii boo xoolee jëkkër ak jabar seen ànd lu gën a yàgg bu ñuy tàggoo mu gën a metti moo xam diggante ba yam fa moo xam kenn ki di bàyyi moroomam di jëm ci biir suuf. kon lu mu fi gën a yàgg. day gën a indil boppam ay jafe-jafe ak ay problème te Macky Sall mii bu muccee ci nii mu doxalee sunu réew mi ay bakkan dee injustice bi fees fi dell. Hmm. lu ko neex wax lu ko neex def. Hmm. mu dund ci dundam ci dund gu teey ba dem yoonam te amul benn jafe-jafe. Hmm. man lu ma neex def ci sama dund te xam ne mbir yi du mujj fenn. doy na waar doy na waar te ëpp na nekk lu am solo lu mënta am rek jàmm ak salaam lañu bëgg suñu réew moom la ñu xam. <laughs> mais dañu dañu gis ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko une fois que mu arrivé jëkk prison bi nga xamante moom moo di Sébikotane. Mhm. dañu gis xale nekk di jubilé di ko tàccu di kontaan lan moo waral lu mel noonu. loolu échec la ci ña ko fa yóbbu. Mhm. Euh, ngir un détenu politique boo xam ne dafa ñëw ñamu fekk si di ko tàccu ak di ko yuuxaloo loolu échec la parce que même ci police ak gendarmerie sax bari na dogal yuy wàcc di jëm ci Ousmane Sonko ñoom ànduñu ci donte corps de métier bi ñu nekk permettre leen ñuy benn def benn réaction mhm. man xam naa ci ñu bari mhm. li ma la wax léegi rek am doole mhm. ak tous les moyens yi nga am nga jël ko dóor ko ci kaw benn nit loolu ku ne mën na ko yaaw jaal sax boo ko joxoon réew mi na ko doxalee noonu ci kenn nit da koy réussir. bokk la nga teg mbir yi ci yoon. Mm-hmm. fi la nit ki di woo nga wuyu ko fa Ousmane Sonko wax saaga wu leen ndey saaga leen baay mm-hmm. joxuñu ci kenn na ko lii. ci terrain politique bi lay wax ak moom. Mm-hmm. toujours Macky Sall ci ay bilan nañ defar réew mi. déew mi fii la newoon démb fii la nekk tey fii la war a egg ci yooyu lay wax ak ñoom mais ñoom da ngay gis ne dañuy am xol bu naqari ba dañuy jàll sax ci vie privée am Ousmane Sonko nangam fameem liyam loolu loolu xol bu naqari la Mhm. Ousmane Sonko doo ko gis mu dugg ci vie privée kenn. waaye loolu dem bi mu dem ci prison bi nit yi di ciblé loolu fierté la ci moom. Mhm. loolu it fierté la ci ñam fa fekk parce que ñoom ñëpp ñoo bokk benn combat. Mhm. sikki sàkku ñu Cheikh Omar Diagne ma nga fa. Abdou Karim Gueye xurum xàq fa. nit dof euh, nit dof ma fa. boo ko doon lim doo fi jóg. Euh, euh, xaw ma nan Kayta Fadilou Kayta. Soxna Ami Dia. Cheikh Baara Ndiaye. Cheikh Bara Ndiaye génn na moom. Cheikh Bara génnul de. ah ñu dégg ñu ko ko jox ne loolu ñu bari voilà ñu bari ngi koy sikk sàkk ñu mm. bari jàpp nañ ne Cheikh mm. Bara Ndiaye génnul taman barki démb rek gis naa ko fekk naa ko ca biir prison ba ah bon demandé woon na liberté mm. ko koy nangul waaye dañoo dem ba ci biir ñu génnaat parce que booba ne xam nañ ne mbir yi ci lañ jëm si te Cheikh Bara suñu borom jox na ko kàddu goo xam ne bu waxee la muy wax day dal comme bal mm-hmm. mi ngi des ci kaso bi que am na am na li moo di liberté ah, loolu ay wax la. Mm-hmm. dañoo defaat appel loolu dañ ko annulé. Mm-hmm. Cheikh Bara ba tey ji may wax yow mi ngi ci biir kaso bi. loolu erreur la parce que gis naa journaliste yu bari partagé ko. Mm-hmm. te nekkul information bu leer. Cheikh baara Ndiaye man maa la wax. mi ngi ci biir kaso man bari ki démb rek dem naa fa gis ko. ñi ko gën a jege ci wàllu ndeyjoor ak ci wàllu càmmoñ bis bu sat dañ may woo. bari na journaliste yu ciy bind sax la ma ca am ca xam-xam xamuñ ko ca. Hmm. ndax ndax ndax xam naa ko mu xam ma hmm. këram ko gëjuma fa. ay njabootam bis bu set dama leen dégg ni nu ngeen toll nu ngeen di defee nu ngeen di waxee ñu ne ma fii lañ toll nii la ñuy defee nii la ñuy waxee. Hmm. kon kooku am naa ci information bu leer. nga man koy lim. di ko lim ba mu mat ay junniy junniy nit ñoo xam ne ci mbiru politique yi lañ leen jàppee ñu ngi ci biir kaso bi. loolu jaay doole la goo xam ne dafa jéggi dayoo suñ borom nag yàgg naa seetaan kuy jaay doole. ci njëlbeenam ba mu dem ba naagu sax bay fecc waaye jëlam ak ay nar a rëy kooka laajal na laajal ñi ko jiitu woon abu lahab ñi nga xam ne dañ daan xoqtal yonent bi sallallahu alayhi wa seenu njëlbeen ni mu neexee woon waaye seenu mujj ak a tar maa yërëm képp kuy kuy def injustice ci am réewam hmm. di di bundu ak di toroxal ndawi réewam te yow sa ndawi réew yooyu ñoo la fal ñoom ñoo waroon a nekk sa fierté nga mujjutu wëlbatiku doon gaynde di xeex ak ñoom doon ay balu fetal di dal seen kaw mhm. yaakaar ne bakkan yi suñ borom bind suñ borom nee na wakk ay yin mi a ayatin fi samawati wala di yamuruna ala wumana nee na dañoo jàpp ne suñ borom lii mu bind nii ñax gi sax daf ko bind ci hasard nii doomu aadama yi di rombante dem ak ñëw mhm. nee na lu ci nekk benn par benn la koy audit te képp ku la ci gën a nekk responsable moo la ëpp ab yan mhm. Macky Sall na xam boppam ñun falu nu Antoine Félix su njoom moom nga xam ne ay waxam amul bopp amul genn waxi dof rek lay wax mhm. li muy wax gone yi ndaw yi sax rus nañ koo wax koo xam ne barki démb la xale yi dee fii ci géej gi muy dem di wax waxi dof jóge fa yow loolu wax ja moom lépp lu mu wax mhm. bu ca paree fa mu tegee micro ba pare na ci ma ngi cay activité am bu leen amaatee mu defaat sorti wax waxam ji amul benn njariñ ñun dégluwul ko mhm. nu ko sunum réew yaakaaruñ ko ci tus Macky sàll mooy président de la république moom lan wooteel moom lan jox suñu carte. moom la ñuy déglu la mu wax loolu la ñuy déglu. jafe-jafe bu amee ci réew solution ba moom lañ ciy yaakaar. waaye Antoine Félix Diome moom na nga xam ne ndawi Sénégal yi jubluwun la. <laughs> dégluwun la. Mhm. xoolun la te sa waxit amut njariñ. te communication bu baax sax yow mënoo ko. Mhm. yow li nga war a gën a jàng ci sa àdduna bokk na ci wax. demal ci journaliste yi ñu tegaat la ci aw yoon li ngay wax ëpp na te amul benn njariñ te ci kenn rek ngay yëkkatee ko dóor muy Ousmane Sonko ak ndigal li la Macky Sall di jox di nga ko layoog ñun nag di ko layoog ñun doy na waar macha allah analyse bi pertinente na macha allah mu nekk lu am solo mais li nga xamante ni moom moo de candidature Ousmane Sonko naka nga ko gisee. kenn mënta élection yoo xam ne sans Ousmane Sonko tamit kenn mënta tee naka nga ko dañuy sonn dañuy sonal seen bopp. Mhm. teg naa ci sama tànk lu wér loo mhm. xam ne boo ñëwee ma ne la lii dëgg la. Mhm. Ousmane Sonko ñii di mbel mbeli di wax. Hmm. yor seen doole yor seen kattan yor seen justice yor seen lépp nañ def lépp luñ man nañ gundaanaat nañ fecc. Hmm. barki yonente bi sallallahu alayhi wa salaam. jour élection yi di ngeen fekk kàttam ca bureau mais dañu gis ni que ki nga xamante ni moom moo di ministre bi Antoine Félix Diome euh, génn na décret que ni dafay tas li nga xamante ni moom moo di euh, Pastef parti Ousmane Sonko bi lan nga siy wax. loolu. Hmm. wax gënu koo nekk ay caaxaan gënu koo nekk ay caaxaan yu rëy noonu man gisaguma ko. yow da ngay dem sa kër ndékki ba suur ndékkee say ginaar say àndandoo ruux la ba sa yaram tàng nga ne fojjat ñëw jël sa micro tas naa parti Pastef loolu Antoine Félix ñoom ak boppam bu ndaw boobu mhm. moom xam na ci ay caaxaana ki tappale la nekk yow parti jàmbur ba mu koy sos yëgoo ko mhm. woo ko moo ko militant am am seeni source yu leer doon ay cadre liggéey ci administration di ay woroomi xam-xam mboolem yéen ñi nekk ci état bi yéen ñëpp benn élément Pastef mën na leen a tas ci xam-xam ci lépp mm-hmm. ci kàddu ku mel ni El Malick Ndiaye xoolal kooku xam-xam bi nekk ci moom xam na ñu bari dañuy wax ay basiiru Jomaay Fay mm-hmm. ay euh, keneen ki nekk tañ affecté woon ngañ demba ngañ ñooñu yëpp sori nañ xoola El Malick Ndiaye ci xeetu wax ci xeetu communication lu ko ci suñ borom dénk mm-hmm. du wax dara loo koy xeebee du wax dara lu ci xam ci question boo préparé ak boo préparé wul lépp la ci yamale mm-hmm. ñooñu nekk ci cadre yooyu nekk ci parti boo xam ne dañ koo créer mm-hmm. créer ko ci jamono boo xam ne bu bu bu bu bu metti la liggéey ci ci diir su gàtt soo xam ne PS bi fi nekkoon ba Sénégal sosoo ba léegi fii mu yegg si genn wàll gi dabu dabu ko PDS gi nga xam ne mënoo ne la ab parti la mënoo ne ab ab ab daayira la wala groupe WhatsApp. APR euh, gi nga xam ne. Hmm. maanaam ñoom dañoo nekk ci guddi gu bët setagul. Hmm. Pastef amoo lenn loo ko mën a rapproché. nga xëy taxaw sa nopp yu guddu naan <laughs> euh, dañ koy tas boo koy tas noo koy da ngay koy wax rek mu mu ñu accepté ko. loolu wax jooju bu ko sénégalais yi sax dugal seen bopp cadre yi Pastef yi nañ continuer seen liggéey mm-hmm. seeni i ak seeni waxtaan mm-hmm. kii Antoine Félix Ndiome mi ay waxam wax naa leen ko jërul déglu kat <laughs> dana waar maturité gi war a nekk ci kilifteef mm-hmm. nga xam ne euh, Aly Ngouille Ndiaye sax mat ga nekkoon ci nga xam ne bu waxee dañ ko mën a déglu sax fekku ko ci moom te Macky Sall bëggul xeeti nit yu mat yooyu nit ñu matadi ñi nga xam ne loo leen sant ñu def ko rek ñoo ñu lay sañaxal ci kaw askan wi waaye en jour viendra buñ jàppee ne lii dinañ ko réussir mm-hmm. maa ngi waat ci màggu yàlla dañuy nax seen bopp nañ jàpp sénégalais yëpp tëj benn kaat benn benn benn benn xeexukaay rek lañ am mooy mm-hmm. lu waaye wax ñu jàpp tëj dañ dem ba sax ban la ci xuuxal boo wax ñaa état bi ngay waxal yaa ngi daal ci kaw état wóorut loolu dictature ci lañ jëm ci lañ nekk sax mm-hmm. ndax buñ demee ba sëñatuñoo wax sax suñu xalaat sëñatoo wax li naqari Mm. wala boo ko waxee yaa ngi ca kaso ba. ah nan dina jàpp di tëj. man demaa leen ko wax yàgg yàgg day jeex. ñun ñii bu ñu defoon vingt ans ca kaso baat day jeex. Mm-hmm, incha allah takk ba mel ni mësta am. Mm-hmm. te ñooñu ñu nu ko daan def bis dina ñëw mën na noo jàkkaarloog ñoom dinu wax di ñun ñu li leen wax lu leen neex. te tus dañ ci dul man te loolu yàggatul dara. Mm-hmm. ndax Macky sàll amul menn pexe amul dara lu mu mën a def ak lu mu mën a jëfandikoo. ba toogaat fii ci réew mi 2024. incha allah loolu bu ko neexee mën naa dajale sëriñ yi ci àdduna yëpp mu teg leen. Mhm. ñëpp jàppale ko ci. waaye du ko réussir loolu dogal la boo xam ne wax naa la boo mën a mënta dem fa lawhul mahfuus fa yàlla di dogalee nga effacé ko tous nga ci mënul ak kum mën a doon nag. loolu moom nañ ci bàyyi xel bu baax a baax baax a baax a baax mu nekk lu am solo macha allah mais tamit laataa ñuy kii rek dama dama bëgg ñu laal ci li nga xamante ni moom moo di mara bi parce que certains sénégalais dañuy wax ne que kilifa diine yi dañoo seetaan et que waxuñu est ce que jàpp nga ne yow loolu abi boobu moom ngay partagé ak ñoom wala yi nañ gëm seen bopp hmm. nañ gëm seen bopp boo waxee ñu naan ay kilifa diine hmm. kilifa giine gu taxaw palaasam gu mat la mu doon hmm. digganteem ak boroomam dara doxu ca kenn du ko présenté kenn kii moom la waaye kilifa diine gu ne yàcc nguur di la jox ngay lekk di lekk lu léwul sénégalais yi nan maase xam seen bopp ci mbir yu bari man sama bopp laa xam menn mbindeef muy dund ci kaw suuf gëw ma la man gëwma kenn ku yàlla bind yàlla mi ma moom laa gëm ci moom laa wéeru kenn laa nangu ne moom a gën Muhammad te yàlla moo ko wax damay lekk ba suur damay naan ba màndi damay jaamu sama borom la ma man gis nga ñii ñuy wax nii kenn gënu la ci mm-hmm. ëpplewul la dara mm-hmm. li ngay xëy di def suba ba ngoon moom la ñuy xëy di def suba ba ngoon ku la ëpplewul cër ci yàlla mm-hmm. gënu laa mën a muñ àdduna ji gënu laa mën a jajj ak teg la ci yoonu yàlla suñu borom boo amee jafe-jafe fii ci àdduna mu ñëw taxaw jëf ci kemt laay kàttan bu la diggee ne mënal na la leneen ëllëg daf lay nax bàmmeel bii dong dafa jege mësoo gis menn mbindeef muñ ne faatu na dugg na ci bàmmeel xam nañ ci moom benn xabaar waxi kese mhm. kenn tanewu la ci mhm. li wér te mooy ku nekk sa jëf mhm. dégluwuma kenn man lu neex waaye mën naa wax waaye néef muy dund yaakaaruma la gëwuma kenn nit man yàlla ci moom laa wéeru yàlla mi jox nit ñi ak lam leen di jox man moo may jox moom laay jaamu ci moom laa wee kilifa diina nag buñ ko dee wax taxawaayam ca am réew Mhm. mooy na maam Abdoul Aziz Sy Dabakh daan taxawee. bu ñuy wax mooy ñu yëkkati seen kàddu fa mu jotee di taxaw fa ñu war a taxawee ak na ñu war a taxawee waaye kilifa diine guy complot. Mhm. kilifa diine guy ah eh, goo xam ne état bu ñëw nga ànd feek moom. ku dem nga pare ci moom. <laughs> man de gawuma la toppuma la. Mhm. te say wax it waxuma ko ak koo mën a doon nag. fu leen neex nag mën nañ faa dagg yóbbul man sama yoon nekku man gawuma kenn man yàlla laa gëm. Touba nag fa laa kenn ma fa dara. sëñ Touba fa ko teg teguma fa menn mbindeef. waaye loolu sama digganteeg moom la Mm-hmm. waaye keneen ku yaakaar na gëm naa la mm-hmm. man ngaa dem tëj sa buntu tëdd mm-hmm. booy woote fii ba suba man dooma gis dooma dégg man nekkuma ci sax ci yooyu voilà alors Touba googu Touba googu sax si la ñu desane dañu gis ne que Baye Fall li nga xamante ni moom moo di la leen bi sant dañu gis ñuy wat bay bay wat benn gaañ ab deret ji di di ko sang fu nekk loolu acte boobu nag tas na ci réseaux sociaux yi ñëpp gis nañ ko waaye Baye Fall rôlam du régler dëkk rôle ab dëkk police ak gendarmerie ñoo koy régler màkk gee nga xam ne ca la ñuy roy mhm. boo demee police ak ma ñooy régler ni ñoo leen teg ci wàllu ñoom loolu lañ jàng loolu lañ xam mhm. man Baye Fall la ma xamoon mhm. ca jamonoy Cheikh Ibra Fall jamonoy sëñ Modou Moustapha ba ci jamonoy sëñ Saliou mii mujj ba ci sëñ Sidi Muxtaar ak Alaaji Baara la ma xamoon ci rôlu Baye Fall mooy na coow ca yoon wa coow ca liggéeyu sëriñ ba ca ndigal ya ca tool ya ca màggal ya ca joxe addiya ya waaye Baay Faal buy sol dugg ci dëkk mhm. naan nit ki sumil sa kap bi kap lan moo ci nekk kap ak mbaxanam yi ma sol ñoo ñooyam mhm. képp protection la sa digganteek naaj wi wat lan mooy wa sa wat nit ñi nañ bàyyi nit ñi ñu dund doomu aadama saa yoo ko xañee jàmm mhm. mu noonoog yow ak cër boo mën a am ci moom nag Baay Faal yi xawma ku leen ko mën a digal waaye man kenn laay lancé appel Cheikh Bassirou Abdoul Khader mi nga xam ne moom ak jeunesse bi ñoo tolloo génération xam na li xew ci àdduna xam na li xew ci dëkk bi xam na ni àdduna di doxee na jël ay xabaar fa mu ko war a jëlee mu renseigné wu xa kilifa gi nga xam ne moom la war a jox ay information mu xamal ko dëkk bi fi mu toll ak ni muy doxee gumba war naa tal leneen lu dul tëb ay teen Touba fee mu toll ci ci ci ci environnement ñu soxla ay garab yu naat ngir dëkk ba dundaat la wër corniche ba la fa nekkoon ci ay place ay nit daan fa xëy moo ëpp moo ëpp la daan xëy marché Ocass man xam naa sama benn xarit place la yoroon mécanicien ñu dagg garab ya loolu sama yoon nekku ci. est-ce loolu moo indi mbënd ma tamit ndax dañu gis Touba fépp a taafim ne. déglul rek comme rek. déglul rek fa laa dëkk. dee su wax lu fay xew. bis bu set maa ngi fa. Mhm. yëkkati mbaar ya nga xam ne ci lañ daan kerloo. Mhm. résister na ko une semaine waaye mënatul a continuer. jant bi fan tàng jër. Mhm. place ba dafa mujj tas. moom mi ngi fii di jaay ay pièces détachées xamoon naa ko xam ne ay yére xale la daan jaay. Mhm. ma nga këram na tocc di wut solution pour ñëw fii Dakar. xam naa it ñoo xam ne seen baraada kafe bii la ñuy yor. di di di di di kocc koccal ba am lu ñu jëndee kilo ceeb ak poobar ak yaa cay aju togg ci mbaxal ngir reere ko. parce ay néew gi doole dañ faa bari. yooyu moo nekk priorité Touba. Mm-hmm. ñooñ tuubaa yërmande lañ soxla. Mm-hmm. sëñ Touba yërmande la ko nit ñi toppee. ba sëñ Saliou mi fi mujj. Mm-hmm. nit ñi cofeel gi ñu am ci moom ak bëgg gi ñu ko bëgg yërmande gum leen ëmpaloon ak aw yiw waaye ku dal ci kaw askan wi. Touba amul benn problème. la ñuy wax Touba dara xew fa. jigéen ña respecté nañ. orma yi dëkk ba ndax kenn gënu gëm sëñ Touba. góor ña ñoo yor dëkk ba économie dëkk ba. Mhm. gis nga Touba ca kanam mii corniche boobu daana fa am 1 million wala lu ko ëpp ci weer. Mhm. fukki junni mënatu ko faa dajale. mbax marché occas gi dañ koo tas. ña daan taaba taaba. Mhm. ñu ci baari ñu ngi dakaar gi di di marchand ambulant te ñooñu ñoo yoroon seen i kër. économiquement dëkk ba dafa deltu ginnaaw. taxawaay ba nga xam ne maire ba moo ca war a tabax. maireu Touba mooy maire bi nga xam ne. mooy maire bi gën a ñàkk solo. gën a ñàkk njariñ ci monde bi hmm? amul daara lu muy jariñ waa Touba. lu dul waxi kese hmm. gis naa ko benn vidéo muy taxaw naan hmm. ba ma xamee ne euh, liggéey moo dox sama diggante ak torox ca laa futteeku naa nga mag waxi kese <laughs> yow liggéey boo xam ne ay marché ngay taaba taaba yu waroon a jëm ci ay nit di ko damm di dugal sa poos ressources yi war a dëgg dugg Touba di ay milliards nga damm ko duggal sa poos lekk ko yow ak sa waa commune ñuy fen waa tuubaa di tappale bunt commune Touba sax day taa éclairage ba am Touba Touba ca kanam ñoo ko fa indi ndox maa ngay taa ndox mi nekk ci biir suuf si mënuñ koo génne nit ñi jariñoo ko mhm. ndox mi jóge ci kaw asamaan si di wàcc ca dëkk ba mënuñ ko faa jële yooyu nekk ay priorité ñu man ko faa bàyyi mhm. naa nit kii ni muy watoo lan mooy sa yoon ci watum nit nit ki bu jàppee boppam xus ko ni kocc watoo woon yow lu ci saw yoon <laughs> doo lijjanti nit kooku nu dundam ñoŋee mhm. nu fa ndox ma jógee nu courant ba desee ca dëkk ba wala mu ndox ndox ma wala màggal gii di ñëw problème yooyu hmm. adduna dafa weesu fu ñuy gëstoo nu nit wotoog nu nit woddoo kenn ku ci nekk sa kër problème ba fa nekk mënoo koo régler bëgg a régler dëkk hmm. te mbooleem lan fay tere ña ko ñañ jiital ci ñu ñëw jéem koo tere ci dëkk ba ñëw ci jiitu gone Touba man gisuma leen ñuy tox yaa mbaa gisuma leen ñuy tox ay cigarette am te bari na ñu leen koy teye boo demee seen kër ya fekk ko fa hmm. nan waxanteeg dëgg te bàyyi caaxaan yi sëñ Bass Abdou Khadir mi may appelé na dem sëñ Muntaxa mu waxtaan ak moom lii ñu teg ko ci suuf guerre civile boo moytul dana am Touba ndax man Touba laa dëkk te maa ngi dégg li gone ay wax hmm, na amatuñ yërmande ci ñoom hmm. lu ëpp nag tuuru fi laay taxawlu ci ci ci mbirum Touba lu ëpp tuuru mu nekk lu am solo macha allah mais sëñ bi dañu gis ni que da ngay yëngu ci wàllu ñaan dañu gis nañ fi ay kaami gis nañ fi li nga xamante ne moom moo di ay xaatim <laughs> waaw. <laughs> loolu sax tey daanaka. <laughs> Uh-huh. nekkuloon waxtaan wi. Ah, waaye sama profession man ñaan la. Mm-hmm, mm-hmm. suñ borom dimbale na ma ci may na ma ci ak ubbeeku. macha allah man boo gisee sànq nee naa la man Serigne su baari defuma leen ay nawle. dëgg la man damaa am relation direct ak sama boroom mm-hmm. wallahi wal qur'aanil asiim. ah bon te bari na bërëb yu may dem ay sànq lañ laa fay gis waaye nit du ma fa romb. li may wax nii. bari na ñoo xam ne lottu nañ ci xam ko. waaye suñ borom am na lu ñu jagleel am na cër bu nu jox ci wàllu ñaan képp ku ñu ci dégganteel hmm. euh, suñ borom mën naa faj sa aajo ak bu mën a doon hmm. ci wàllu xalwatu hmm. ci wàllu nit ki xam ay saraxam xam rawxaaniyam xam biddiwam ndax bari na jafe-jafe yu gaar nit ñi ñàkk xam seen bopp ci xam seeni sarax xam seeni rawxaan xam ku leen mën a seetal wax leen ci seen dund luñ mën a dégg mhm. ba mën a gindiku ci seen àdduna seen àdduna mën a baax mhm. wa aataynaahum min ku li kulli sayin sababan fattabaa sababan la yàlla wax nañuy lu tey topp sabab yi mhm. képp ku topp sabab li tey sabablu am nga mille sens képp ku la gën a fonk sa bopp fonk say sarax fonk wàllu ñaan doo des ginnaaw man nag mbirum ñaan boo gisee jiitaluma ko ci samay waxtaan dafa doon loo xam ne lu ma peeg teg ko ne le ñi ma xam duñ ma caaxaane mukk bu ma jubloo sa aajo faju ak koo mën a doon sa aajo faju góor gu nekk ci relation koo mën a doon ñëpp ci bokk yam am na loo xam ne dañ ko cee peeg mm-hmm. xam-xam la boo xam ne waxuma la lu nu suñu borom may waaye lu nu jàng rek buñ ci amoon mu doy sëkk mm-hmm. te man mii jàngantuuma Tuubaa googa mm-hmm. mbooleem ku fay yërub téere loo xam boo ñëwee ma xamal la lu ñu toll ah bokk ci ñu dàq bind ci réew mi bind tey bu raafoon Sénégal kàpp menn man mën naa koo dekkalaat teg ko ci yoon am na loolu ci suñu borom may loolu du ay caaxaan du ay wax du am njàngantu jàng dëgg-dëgg moo koy maye. mais sëñ Mbacke xam nga man man fu fu ma dem ne dama fay nekk sama mbokku jigéen yi. Uh-huh. ñi nga xamante ne dañu am faru rab. Uh-huh. wala ñi nga xamante ne relation bu ñu bu ñu dugg rek mu uh-huh. yàqu. même góor ñi comme Ibrahima wala Kalidou <laughs> lan lan nga di leen defal ñoom. yow mi xanaa xamoo yow mi di wax sax faru moo la sonal. ay <laughs> gis nga nga am na góor gu toll ci takk soxna mhm. wallaahi lazim li muy am ci ay relation muy yàqu mhm. du daara ko ko xañ lu dul rab mhm, rab li muy gàllankoor ci nit xañ ko jabar moo ci gën a tuuti xañ ko wërsëg moo ci gën a tuuti day dem ba mën na laa yóbbu ci ci ci ci ci ci xalaat yoo xam ne sax day jéggi dayoo wala mu lay wéet wéetloo ama fekk maanaam koo xam ne day bëgg lu wéet wéet lu bari wala di bëgg yenn film yi et cetera. Mhm. bu deful bu jógul bopp ci boppam rab dina ko yóbbu ardo hmm, bari na ñum sonal bari na ay dégâts yu muy def bari na ñoo xam ne dafa néewal doole seen rawxaan yi ba hmm. mënatuñoo am wërsëg hmm. lu nu yaakaar mu tas xeexante beeg rayante bu met bi ci dëkk bi bari na yoo xam ne rab participer na ci de te nekk na mbir moo xam ne gis bët mënu koo gis te mi ngi dëkkaale ak di jëflante ak yow loolu xam-xam dëgg-dëgg moo ko mën ne coppet bari na ñu koy ñaan lu sax te du saafara wu bari na ñu naan dañ ciy ñaan tamit te it wax ja moo ci ëpp ndax ki nga xam ne da nga ne ko da koy ñaanal ci wàllu rab mel ni yow mii tey ma gis ko mënumaa gàllankoor rab bi ci sarax mënuma koo gàllankoor ci menn mbir yëkkati saafara rek jox la du du def sax benn effet dafay mel ni tey yow nga bëggoon a sangu ba pare sol mbubu toile ndax yor ndox mi dina egg ci sa yaram yaram bi du tooy foofu nag la rab yi di jaar ñu baari man nag boo ñëwee toog boo ma tegalee gaas ma binduloo jinne ci sa kanam nga gis hmm. mbind mu leer nañ moo xam ne yaa jàkkaarloog moom nii foofu may jaar ak ñoom nag falaa leen di tënk di leen defloo ak di leen waxloo hmm. di dindi gàllankoor yi ci nit ñi bari na ñoo xam ne dimbali naa leen ñu bari ñu yor sama teraanga foofu laa jaar ak ñoom hmm. di ci sant yàlla bu baax ñu ma ciy suturaal képp ku ci am aajo rek nañ déggante am na solo boo tëddee mën ngaa sama bokk jigéen ñi comme ñu mel ni man comme man dama am faru rab rek ñu daal lay seet si mais tamit laata ñu tëj waxtaan bi rek dama bëgg nga wax suñu mbokk Modou Modou yi nga xam ne ñu ngi si àll bi mhm. bëgg a ñëw mënuñu ñëw problème mu papier du dang siy ñaan loolu lu gaaw ñaan bu gaaw sax am na koo xam ne euh, sama borom daf ma dimbale yàggul pour li mujj rek laa lay wax mhm. bi ma ko defalee wallaahi lazim ci weeru lañ ko wax mu mujj naan ma dooma ci defal fukk ma jox ko sama gaay ma ne ko déedéet. <laughs> yow kay na jaar nañ jaar fi nga jaar rek yow. defal ko fukk waay loolu bari na ñoo xam ne taxawu nañ leen ñoo xam ne dañ leen xam sax ñoo xam ne ñoo bokkoon ay koñ yenu dëkk ca Touba. Mm-hmm. ñoo xam ne mbiri ñaan yi sax boolewun waaye xam nañ ko ci ñun. Mm-hmm. ndax doon na loolu fort ci ñun. këyit bu mën a doon nag bu ne fii ci Sénégal. Mm-hmm. fa nga bëgg a liggéey wutal ma këyit du fa bokk nga indi ko. la ma lay jox boo ko lakkee ba xam nga boole moom. bu doon benn nit bu ñuy jël yow lay doon am na loolu ci suñu a may xam naa foofu la ñuy taxawlu ci mbiru ñaan mhm. mais xaaral ñu <laughs> laal rek li nga xamante ni moom moo di faiblesse sexuelle maanaam néew kàttan loolu du ko calmer ni ma ko waxee woon rek faj ba mu wér rek la jox garabu jàmbur tamit mhm, mhm. te boo wutee ndijji bopp di ko naan sa diirug dund du la dal wala xasum xoos wala ngay naan senjang loolu du ko calmer dem wax naa ko fu ne man euh, néew kàttan duma ko kalme mm-hmm. faj ba mu wér bu ma la joxee benn traitement lay jox duma la jox ñaar duma la jox ñett mm-hmm. ci semaine bi ma la ko joxee mm-hmm. bu la neexee balaa moo jeex nga arrêté garab bi nekk lu am solo ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk internet Dakar maa ngi tàgg mbooloo mi di leen jox di daje ci beneen numéro ñu ñu ñu ñu ñu defaat yeneen émission yoo xam ne lépp lu lëntoon fii rek daanañu ko leeral li ñu jublu ci wax ji mooy réew mi jëm kanam réew mi avancé waaye ñii ko yor dañoo neexut a waxal